ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant di gërëm ñu ma ànd ñu jàpp ci mbagg yi ba daal di yemb daal di yegg fii waaye li ñuy olof Ndiaye naan ku rootal mbëtt roccil bal amoodument du loolu la ñuy wax ba ma jógee tafaaten xam nga ne dinaa jaar ci càppaay coole bi xale Pikine bi nga xam ne bu jógee waa Pikine ñëpp jóg ñu naan ko Boy Niang borom curuxu curuxu borom bu jeexee jeex na xeeru fajar woo kongo wala ah, Boy Niang maa ngi lay nuyu la bàyyi ñuy sant yàlla jur si yonent bi sant suñu ay ñaari waajur ñu sant waa kër Cheikh na Cheikh Sadou Abi ñu sant waa kër Cheikh na wul du maamin yëpp di nuyu xalif général day xaadu mu Cheikh Aya wul du Cheikh bu yooyu di ko ñaanal suñu boom defal ko tan yokku fanam defal ko wér bu baax a baax di nuyu njabootu Cheikh na wul du maamin yëpp di sant yàlla bu baax a baax di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu fépp foo xamante ni soppe boo ñaam yi fa ak fansam maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di nuyu di leen nuyu yéen ci déplacement bi di si yàlla ñëpp di xaar waxtaan bi incha allah. mu ngi noonu xaar waxtaan bi nag li ñëpp doon di laaj di ko mbébét man ma la ko yéegee boo ña la moo waral delluwaat bi nga jógee France nga jógee voyage sax laa wax jarumee fu nga de moom da ngay tàggoo ndax dem nga jógee voyage ñëw jàppat combat nga delluwaat voyage lan moo waral dem demaat bi. waaw combat moo tollu foofu rek ba pare préparation la ñu wax boo defee sa préparation natt ko benn date date bi ñu repoussé ko. da ngay demaat defaat beneen préparation yokk ci li nga yoroon noonu la loolu moo taxoon tamit ñu demaat par rapport a staff bi gis ne dañoo war a dem liggéey waat ñu dem liggéey waat def foofu maximum deux mois daal di ñibbi si et puis maa ngi nuyu ñi ma doon liggéeyal foofu muy sama coach yi di nuyu Eric di nuyu commando di nuyu Rachid di nuyu Paas Wali sama gars yi nekk fépp Yacoub maa ngi nuyu gars yëpp Fadal. di ñu fa nekkoon Lamine Seck di nuyu sama mag yi fa nekkoon di ma taxaw bu baax a baax sant yàlla bu baax dem naa liggéey ñëw naa maa ngi sant yàlla bu baax incha allah. ba léegi voyage bi lañuy des lañuy desandi bi nga demee liggéey ba nga ñëwee sa entraîneur lañ lañ gis ne war nañ koo yokk balaa ngay dellu si war fii suñu gaal. waaw le fait li ñuy yokk ak li ñuy wàññi moom loolu ñun lay concerné mooy suñu liggéey professionnel la di li ci am solo mooy ne combat bi ñu koy waaj soreetul incha allah le 19 décembre la ñu ngi naan suñu borom defal ñu tan may ñu fekkee may ma ko may fekke sama adversaire may ma fekkee ak fan si am di jàmm yi ak ki xam ne moo tëgg combat bi muy Pape Thialis moo nuyu de passage di ko ziar bu baax mhm. ba ñu yegg li liggéey mbiru bopp la mhm. ak sama staff moom it li muy liggéey ñu mën wax mooy liggéey nañ li war a liggéey dem nañ yokk ji ñëw nañ ci jàmm ci mhm. jour ba nañ xam lan lañ liggéey ak lan lañ yokk incha mu ngi noonu nag Boy Niang luñ bëgg a xam mooy ba nga demee tukki am na ñu doon naan du mën a sax ñu doon naan loolu dañ koo gis ñu ne Boy ñaa ñu ngi ko benn journaux Boy Niang ak ki nga xam ne mooy Ama Baldé ñu ngi signé contrat MMA loolu dëgg la wala déet. waaw foofu damay leeral rek parce que le fait que ñu gis ma ci image MMA dama nekk France di entraîné. yàlla dogal ñu organiser ñu organiser ba pour la première fois un MMA foofu. ñu def ko dëkk bi ñuy wax Roubaix maa leen nuyu les Roubaix maa leen nuyu baax ki ko organisé yëg ni maa ngi ci dëkk bi. di entraîné waajal sama combat mu invité ma ci invité ma en tant que lutteur dama la ma invité ma ñëw mu présenté ma jox ma ma jël discours wax mu laaj ma ay question ma wax loolu moo waraloon sama tànk foofu waaye nekkul ne dama signé combat MMA dama ñëw parce que dama ñëw ñu invité ma comme un lutteur sénégalais bu ñëw ci grade MMA ma ñëw présenté wu loolu la rek. macha allah ñu gis ay raaya yi fi jëlee woon di la encouragé bu baax naa la nga doolu liggéey. affaire bi liggéey la job def sa poos li may laaj mooy ndax Boy Niang pare na à 100 pour cent parce que combat bi jege si na presque un mois rek moo ci des. waaw da laaj wala nga bëgg a xam. damaa bëgg a xam bëgg internet yi. xam naa bu yàgg yàgg yàgg. man sama première ñëw bi rek pare woon naa pour bëri. Mhm. sama premier ñëw ma jógee France. man ko xam Boy Niang ñi ma xam dëgg. ñu caaxaan ak combat bi. Mhm. combat dañ koy jëlu séeréer bu baax. préfam mhm. ñun nekk suñu ginnaaw. am fu ñu teg suñu bët ñun duñ caaxaane bis. ba ma ñëwee sama ñëw mu njëkk ba rek pare woon naa pour ñu pousse ko ma dem tolluwaat donc pare naa bu yàgg. sa adversaire dafa jàpp na yow da dem voyage ñëw gars yi gis na pare woo moro bi ñu jàppaatee jë delloowaat la ne dama nga yokk. xanaa ah, demoon yokk la wax. waaw waaw ah, loolu la kon dem dafa daa dem yokk. waaw mhm. ah, kon dem naa yokk. lépp laa yokk bëre xeex explosivité rapidité. bagaar lépp laa yokk. ah parce que loolu la. jour boobu loo koy indi xeex. kon Modou Mané làmb jooju dina neex ndax Tafaatine nee na yow loo indi da ciy takk rib. waaw da ciy takk rib de. kon de pare na pour takk ci rib. biberon loo indi yow loo indi. non ay biberon yooyu moom day biberon la indi de ah ñëpp ko gisandoo. biberon la ah. yooyu moom day xaar moom mooy lool ñun képp xam nañ suñu stockant kaasu fonde. kaasu. non day jël kaasam loolu moom. man gisuguma fi gis naa fa biberon ñii naan. booy ana booy ana fonde bi. moom gisuguma wax nañ ci wax. wan ko ko déggoo wan ko ko. indi ko fii boo ñàkk a. fonde mboq la la jël kaatam. <laughs> loolu moom du ñàkk day jël kaatam li mu kese mu neex wala bi xorom la ciy def. Ah! fii warul neex. da bëgg mu weex. non lu neex amu fi. ma koy wax loolu rek di ko wax ne combat bi mooy loolu de. ñuy waaj na waaj de. Hmm. waaw am na adversaire bu fonk bisam. Hmm. boo xam du caaxaane bis. Hmm. bëgg làmb fonk làmb na xam loolu bu baax a baax. waaw wax ji nag waaw bari na mais jarul wax de. man ak Tafatine incha allahu rabi bu abi le man moom rek ñoo nekk ci géew bi ab génn suñu diggante. ñu jàpp ne combat rek su boobaa incha allah ku ne na xam sa morom ku ne da nga ñam sa morom. Mm. affaire bi amul ay nappante yooyu noonu indi woote xeex pour boo ñëwee doyandi loolu. non mooy loolu moom lu mu dama ko ñu fekk. non si sax Tafatine moo war xeex bi de. Hmm? bagaar bi. fi hmm. ñu jox Tafatine. Hmm. yàlla xam na ne moom ko. nee na yow daal benn droit nga am da ngay yooru rek doo gaaw a dóor. yooru ngay def amul problème amul problème. incha allah na waaj. Mm-hmm. ma waaj jour ba al bi génn suñu diggante. Mm-hmm. ku nekk na xam kan mooy kan. incha allah bu neexee yàlla ndaaraan bu dofee ndaa na koy faj. ah déggu ma bu Boy Niang déggu ma. ndaaraan bu dofee. Mm. ndaa na koy faj. yéen a ko dégg man moom lu waay di ragal wax soo ma ko jottalee ma yëgee ko ñu ne. combat bi Boy Niang mystique la ci yaakaar. bu dul mystique Boy Niang bu bëri làmb ji yow ngay wax ñooñu. <laughs> non mais loolu amateur du ko wax amateur làmb du wax loolu amateur làmb na Boy Niang amateur làmb bi commencé na Boy Niang mbis brise de ba fii amateur làmb xam na Boy Niang quoi kooku du wax loolu. Mhm. làmb moom mystique xam nga après quoi ci làmb nekkul priorité ci làmb. maanaam mhm. da ngay entraîné am doore wóor sa bopp. Mhm. mën a xam bu baax fooy dóor. loolu mooy làmb ay mystique loolu day xaar. ku nekk nga dem ñaanlu affaire yooyu dem say mbokk ñaanlu mais affaire làmb du foofu. Mm-hmm. làmb du foofu incha mm-hmm. ci loolu nag liggéey bi da teg di liggéey sama moom teg di liggéey ngay liggéey pan mu liggéey pan fu mu ñaar séquence d'entraînement la booy ñaari. ñun gis nga doon def dix rek. ah ay dix yooyu rek. <laughs> mais xanaa doo nelaw. non amul nelaw nelaw jaar dix séances teg teg après xës dix séances teg teg déggoo man la li ñuy liggéey ñun la concerne suñu mbiru bopp la. mu ngi liggéey cinq trois deux benn lépp suñu mburu bopp la mhm. sentir daal lu ku xam Boy Niang amateur yi xam booy ñaa xam ne bu ñëwee saal bu simbagoo nañ xam ne liggéey na mhm. te moom it buñ dalante laa la jëflante mhm. moom dina xam ba xam liggéey naa wala liggéey buñ paree bëree pare ngeen dem laaj ko te ko booy bi liggéey da wala liggéeyatu boobaa moom mooy ni tontu nee na am na mbër yoo xam ne dañuy wax di nappi waaye arbitre bu doon nettal li am ci géew gi hmm. neen dee ragal yow jour boobu yow doo génn piki <laughs> nee na bi su la jàppee li arbitre bi su nettalee li am ci géew yow doo génn Pikine. non mais Tapha Tine. yéenay baax rek hmm. sax ku muy bëreel. Hmm? xamul sax su muy bëreel bilaay walaay. waaw dañu yàlla may tarak fekk rek. incha allah na bu baax ki muy bërëb parce que li mu liggéey bu bi su taxawee boo nee puusal nii. Hmm. boo ñaayoo da ngay puus. moom mënul puusoo. <laughs> Tapha Tine ko nee na boo nee puusal da ngay puus. am ah, moo tax man la xamul ku muy bëreel. ñu muy bëreel làmb boole nañu. mais xamul mm. nga koy wax. waaw man benn poids lourd yebbu ma. Hmm? làmb bu ma bëree làmb. booy ñaa mooy wax benn poids lourd yebbu booy ñaa xoolal sama combat yëpp. Mm-hmm. mosuma mm-hmm. ak fu ñu mënta jaar. Mm, mbaaru lourd bi tam fi nga jaaroon noonu gars yi. mbapat laa depuis booy bëri mbapat. Mm-hmm. ñu ma topp xam nañ Pikine fii fu ne fu ne caaro yi yëmbal géej fu ne. benn poids lourd yebbu ma dama leen mën bu baax mun a bëree ñoom bu baax. sama fans yi ma wax leen loolu bu baax bu kenn jaaxle bu kenn tiit ñoom ñëpp nañ def fi ñu war a def jàpp fi ñu war a jàpp ñu waaj ñu xam ne mbër bi pare na incha allahu rabbi te waaw poids lu dama minante ak ñoom bu mën a bëreeg ñoom gars yi amul jaaxle incha allah ndam rek ci kàttanu yàlla incha allah xam naa temps bi xoj nañu nag mais dinañ am benn trois questions bu ñu koy posé lan ngay wax ci CNG par rapport ak li mu fi liggéey ba heure nekkee maa ngi nuyu bira seen ak équipe yi ci nekk yëpp mais ñu ngi teg ay jéego ñu ñu ngi liggéey gisee nañ drapeau CEDEAO passé waaw affaire bi nice na xam nga maa ngi ciy félicité équipe Sénégal bi sama papa Ambroise Sarr félicité ordinateur mi nga xam suñu équipe la ne mm-hmm. ñu ngi si contact yi ñu ngi jàppalante bu baax maa ngi koy nuyu di ko ziar mm-hmm. et puis di leen wax félicitation bu baax baax CNG mm-hmm. bi ñu ngi teg ay jógo parce que liggéey du jeex ci benn fan quoi dañ leen may temps rek ñu liggéey xool làmb ji assainir ko teg seen i pas quoi te loolu rafet na ñu ngi leen encouragé di a baax baax am nga xel lu doy yow en tant que porteur de voix sa raq yi ne ca ginnaaw boo doon ñaax CNG lan nga leen ñaax ñu yokk ko wala ñu wàññi ko. waaw CNG bi waa lu fekk rek ñu gën a bàyyi xel làmb rek. gën a wut ay opportunité yoo xamante ni làmb dafay avancer quoi. parce que organiser làmb rek doyul fois ñoom gestion lañ leen jox gestion bi tamit ñu xool nu ñuy tegee ay làmb booy gën a bëri. parce que journée yi doyul quoi pour mbëri ndaw yooyu. moom gis naa ni commencé woon nañ ko sax. Mm-hmm. mais ñu yeggali ko quoi le fait que. mbëri waaw waaw mercredi wala jeudi yi wala vendredi ñu koy tëgal booy ndax booy di bëre quoi. Mm-hmm. loolu mooy gën a am solo ko mm-hmm. mu noonu kaddu yoo xam ne boo ñaam moo ko wax ñiy waajal face to face ñu ne le 25 novembre la. incha allah Iba Mar Diop. naka ngay waajalee mobilisation ak supporters. waaw incha allah le 25 novembre. parce que ñëpp ay sportif lañ te làmb moo ñu boole. yaa ngi dégg Tapha bu ñu làmb boole woon bu ñu rombee nuyoo la ñuy seeg fa la ñuy yam comprendre nga waaw comme ñoom dañuy war a ñëw si Pikine comprends nga te ñun fii suñu gox la quoi donc nag ñoom am na loo xam nañ ko njëkk a wane rek suñu bëggee lépp naage comprends nga ñu ñëw ci jàmm ak salaam def appel bi di fair play cap agré na gars yi comme li ma leen waxoon rek keroog bu ma jël si aéroport man leen luy xeex luy metti luy defante loolu dañ ko bàyyi maag tafaatin quoi incha allah bu yàlla mais ñoom nañu ànd yar ak teggin suma supporter maa leen koy lancé en tant que ambassadeur pour le non ñëwee noonu comme d'habitude incha allah di woo gaa yëpp nag di woo waa Pikine waa Pikine maa ngi leen di woo bu baax bàyyi ma fenn tëli mag tëli bees rue 10 Icotaf waxi naan 1 2 3 cité 1 2 3 fi ma dëkkoon syndicat tale affaire bi bàyyi ma gars yi ah cité pépinière sama gox mbaar ba bàyyi ma gars yi ah mbëru Pikine champion yi sunu mag Eumeu Sène Ama Baldé maa ngi koy nuyu de passage Sokhu Jalli Batista mbëru Pikine yëpp Ziza fàttewuma kenn nga ku lim bi ngay jara boo yëpp daal ah ñu ngi leen di woo ci combat bi gars yi ñoo jàpp ci bu baax a baax waa Pape Sarr Mor Ndaayaan waa Didis Massa Zeng waa Didis maa ngi nuyu ba Issa Mané gars yi Talbo gars yi ñu dajale mafia bi yëpp capacule yi groupe capacule national capacule international gaa bi ñu leen wax le 25 la incha waa waaw ñaam Pa Moussa moto yeeg extérieur yi bu gars yi fàtte dara incha nañ ñëw ñu takk convoi bu dëgër incha allah Mor Ndaayaan waaw kooku suñu mafia la ah mën nañu boo ñaafee stade bi am na yow ñu waaw ñu ñaa ngay wax caabaacoor bi caabaacoor man fu ma génn sama gox ak mooy loolu man dama doon bëri Demba Diop reportage di ko tàngal mhm. man ma nekk sama gox ak ma génn sama gox laa yamale mhm. ñun ay doom Pikine la ñu ragaluñ loolu fu ñu war a dem dañuy dem amul loolu ñun amuñu jeet boobu incha allah mhm. waaw di nuyu waa di wax gars yi ñu waaj bu baax waa waa cité 1 ma dëkkoon fi ma njëkkoon dëkk waaw maa ngi nuyu gars yëpp di wax ñu waaj incha allah ñoom alaaji gay kafe ga ñoom maas graay waaw waa njaago yi waaw suñu mbokk njaago yi mbër jaaree fa jaaree fa santaale ñoom nga tëjaale ndax incha allah woo baax gaay deel woo deel wax ne incha allah le ak salaam mhm. waaw di wax Pape Thiali di ko nuyu bu baax mhm. di ko félicité parce que gaynde la quoi jàmbaar la mhm. parce que affaire yombul te xam nga gars yi dégg nañ ci lu nekk mais noonu la quoi àdduna noonu la quoi da ngay góorgóorlu ak nekk sa luq liggéey xam nga suñu boom da lay defal jàmm quoi ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal journée bi incha allah mu jeex am ci réussite totale mu waaw di woo sama mbokk yi mu waa kër maam Cheikh Rim du maam Seck sama maam sama mbokk géwal yi parce que sama côté yaay géwal lañ mais man doomu séeréer laa maa ngi dëkk Sambé sama papa Sambé la dëkk sama maam Sambé lañ dëkk doomu séeréer laa ci deret waaye sama côté yaay sama mbokk géwal yi tamit maa leen di woo waa kër maam Cheikh maa leen woo di woo waa Sambé di leen ziar bu baax waa réseau de Diourbel sama mbokk bawol bawol yi maa leen woo di leen ziar bu baax baax tund Sambé yëpp bàyyi mu fen di nuyu sama kilifa bu nekk foofu mu ñuy wax maam Ngañ Pouy maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax di wax waa Thiès ñu waat bu baax sama kër maam buñ bàyyi buñ bàyyi na ñëpp mobilisation bi yëpp. yow xanaa da ngaa bëgg midi stade bi fees. non comme d'habitude Boy Niang mooy comme d'habitude. Mbacké yow bu bu réeree Boy Niang Boy Niang comme d'habitude gars dañ koy tàngal. di woo waa Gambie fans club Gambie bi. di leen wax ñu waaj bu baax ñu ñëw incha allah nee bi bii nag gars yi nee naan 4 soxla waa Gambie. dañ doo indi 10 2 bus mais bii 4 yi sama dëkkandoo yi maa ngi leen nuyu di leen woo ñoom it incha allah di leen bëggee di leen wax ne ñoom man ak ñoom ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay di leen woo bu baax waa Daaru Rahman Touba fàttewuñu leen sëñ Abdou Karim ñu ngi koy nuyu moom sëñ Fallou di ko ziar bu baax a baax Mbacke Balla ñu ngi koy nuyu di sàkk ci moom ñaan bu baax a baax a baax di woo ñëpp bàyyiwuñ kenn waa jak saaw kër Massar jak saaw fàttewuñu leen kër Massar fàttewuñu leen ñëpp ñëpp ñëpp waa Thiès di ñaanal sama frère macha allah dafa war a bëre ci combat euh, Forza bi waaw sama frère la macha maa ngi koy ñaanal ndam ci combat bi Saloum 2 gars yi ñu àndal di Grand Magic Zambala ordinateur maa leen nuyu di nuyu sëñ Modou Kara Mbacke Nooré ni maa ngi koy nuyu moom suma papa la suma lépp la maa ngi koy nuyu di sàkku ci moom ñaan bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax nag le 25 la ñuy waajal mooy signature bi incha allah di wax ne gaa yi bus yi ak kaar yeek moto yeeg pétin yeeg sareer yeeg yëpp fi lay déparé noonu ñun léppay dem incha allah lépp lépp la gaari yóbbu incha allah vélo yi sax yëpp gaari yi dawal ñu dem velo lépp sareer yeeg yëpp yëppay dem incha allah hmm. di wax gaari nañ ko waaj bu baax incha ñu ànd dem ci jàmm ak salaam di nuyu ñu ma ànd ak di entraîné sama course père xës père bu xam waat suma papa suma lépp maa ngi nuyu pel lin ñoo xam ne ñuy ngi yeew fajal su ak ngoon di liggéey ak man di son ak man bu baax maa leen nuyu sama xarit yi ñoo m de si dégool équipe bi yëpp bàyyi ma kenn sama frère yi sama famille maa ngi suma yaay ak suma papa di fan ak wér bu fekkee njariñ lépp lu ma am ci làmb ñu fekk ko ma bokk ko ñoom incha allah waaw di nuyu salle bi ñu nekk ni mu Batara fitness sama xarit suma grand ñëpp xamee ak moom mu Ousmane Fall maa ngi koy bégg Ousmane di ko ñaanal jàmm bu baax a baax saal bi nee nañu heure bu ñu ñëw bu ñëw 5 heures du matin gars yi dañuy ibbi ñu liggéey 4 heures du matin gars yi ñu liggéey bu gars yi tëjee tamit min bi dañuy ñu ibbi ñu liggéey donc mention spéciale Ousmane di la ñaanal bu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp incha allah ku ñu limul rek nga xam ne incha allah bi moo ci xajul mm-hmm. ba pare micro lañu yor ay nit kese lañu duñu matal lépp mm-hmm. mais ku ci nekk daal incha sama xel mi ngi ci yow mm-hmm. sama lépp ñaan nga ñaanal ñu suñu boom defal ñu ndam incha di wax tafaatin mooy loolu bu jeexee rek dafay jeex waaw noonu la demee moo ko ndaaraan bu dofee rek ndaaraan da koy faj waaw man maa ko wax incha muy noonu kàddu boobu ah, madame ñaa mu xam ko puissance 4 voilà li mu bëgg ci sëyam bi yàlla moo xam yàlla na ko yàlla defam fekk njëriñu njaboot bi ak njëriñu booy Niang waaye duma sant di gërëm sama équipe bi Magne Pro 100 hmm? pour cent assurance kenn du yow maa la bëgg maa la bëgg maa la bëgg Leewtoo production Leewtoo TV ñëpp cat ba cat maa ngi nuyu waaye kenn du Cheikh Mbacké Kébé sama papa boobu boobu di ko ñaanal jàmm ak salaam gudd fan siir li mu bëgg ci xolam yàlla na ko yàlla defal li mu bëgg ci ñun ñun njabootam bi yàlla na ko yàlla may mu gis ko ñu koy weer di ko weer di kébeñ di ko dundal tey émission bi yàllaa ko mayaa appa càppa bi kon nañ dem ba beneen yoon beneen événement ci beneen mbër beneen champion beneen kon jaajëf